merci jërëjëf vieux de l'autre côté Monty et toute la régie ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte mbokk yi dellu siwaat fii ak yéen ci seen jotaay le point corona sur télévision Futur Média ni ñu koy defee bés bu ne ñu fas yéene ñëw wax ak yéen jàngoro ji fu mu toll ci Sénégal ci situation bi nga xam ne waa Kër Docteur joxe nañu ko tey mu mel ni ki ngeen jéggal ma mu mel ni ki tey moo am record bi nga xamante ni nii kaawu malaat yi feeñ na bu ñu ne record mooy ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne nii gis nañu ni yor nañu doomu jàngoro ji moo feeñ tey ba tax na senegal kon toll ci ñeenti téeméeri nit ak fukk ak ñaar yoo xam ne doomu jàngoro ji feeñ na ci ñoom bi yi duggee ci senegal le 2 mars ak léegi naam nag niñ koy waxee bés bu jot am na ñu wér te loolu jar naa sant yàlla ñaari téeméeri nit ak ñeen fukk ak ñaar jot nañuy wér ba waa kër docteur yeewi leen ñu ñibbi seen kër tey jii booy xool téeméeri nit ak juróom benn fukk ak ñeent ñoom la waa kër docteur di toppatoo te loolu jàngat biñ ci war a am mooy ñu fexe ba bu mu ko romb ndax ñi waa kër docteur di toppatoo lu muy gën di bari risques yi di gën di bari risque ñi seen kaa di gën a compliqué di gën a bari te Sénégal mu ngi ci juróomi nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakken ci jàngoro ji ñu war ko bàyyi xel jaratul sax méngale ak li nga xam ne moo xew ci àdduna bi foo mën di jël Mali gii ñu jege suñu wet fukki nit ak ñeent ñàkkagum nañ fa seen bakkan te pourtant fa la feebar bi mujjee dugg waaye ñoom ñu ngi ci yeneen jotaay ba ci élection yi ñu nekkoon. xëy na loolu aussi njeexital am na ko ci ni feebar bi tuddee France waxatuñu seeni wax ndax vingt mille personnes ñaar fukki yi nit ñàkk nañu seen bakkan ak lu teg Italie Espagne ba mu tojeeg léegi yàgg na Amérique waxatuñu ko te ñoom ñoo ñu gën a dëgër système de santé fexe ba yëf yi bu mu romb fi mu toll te ni ñu leen koy waxee bés bu ne feebar bi li ciy musal bépp doomu aadama ku ne mënal na ko boppam. ndax aajuwul ci poos bu diis aajuwul ci daraja du borom màqaama du it néew di doole ku ne mën naa set ci boppam set ci say loxo wàññi sa yitte ni ko waa kër docteur digle loolu mooy situation bi nga xam ne waa kër docteur def nañu ko jotaay bii nag chaque jour dañu fiy ñëw am njàngat moo xam ne nii dañu koy am ci njeexital bu feebar bi am ci suñu dundin waaye njëkkee ko ci nu ñuy fexe ba du law ba du ñu ëpp loxo ba du ñu mën ñu nekk ci léewatoo bi nag ba ba léegi fas yéene koo daan ni ko suñu jotaay bi di bàkkee daan corona léewatoo bi naam yàgg na waaye xam nga booy léewatoog nit muy continuer di gën di avancer di la wut si jar na nga ñaaw njort te feebar bi mu ngi gën a avancer nag di ñu wut si mel na ni ki ñun ñooy reculer léegi nag fas yéene ko song daan moo tax ñu woo fi ñoo xamante ni nii dañoo soxla woon seen taxawaay ci yëf yi xool ndax jàpp nañ ci combat bi am déet ni ñu koy waxee ndax nag bu ñu demee ba ne kaa communautaire mooy mu ngi ci suñu biir ci biir askan wi ci biir gox yi ñu ne ah loolu ñan ñoo ci gën a yey ñu dul ñi nga xam ne nii ñooy bàkkee seen bopp bàjjani gox yi présidente ndey Fatou Diallo présidente national réseau des bàjjani gox dalal jàmm. ok Cissé alhamdulilah maa ngi kontaan ci li nga ñu invité tey ci plateau bi. nga xamante ne moo yëngal àddina yëngal suñu réew jaaxal ñëpp kontaan naa ci ñu ngi àndak yow ci lépp loo ñu laaj rek di taxaw rek ci turu bàjjenu goxu Sénégal yëpp. feggoo ci jotaay bi ak sa jigéen sa rakk bokk ngeen ay jotaay yu bari. Mm-hmm. Denise Soxna Denise AP. DC. agent porteur de dynamique communautaire di beneen xeetu taxawaay boo xam ne nii dañ koy am ci biir gox yi Denise ma naka mbokk yi waxi naan waaw alhamdulilahi rabil alamina allahuma salli ala saydina muhammad euh, jërëjëf Cissé euh, maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu le monde entier di nuyu sama naataangoo sama présidente Adja Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu accueillir tey may ñu occasion ñu mun a wax ba nga xam ne nit ñi mën ñu gis mën ñu dégg muy TFM di nuyu nag ki nga xam ne tey jii su ma ñëwee fii ci turam laa ñëw muy a ah, le développement communautaire bi nekk ministère de la famille ak le district ak le district de Guédiawaye di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu senegal yëpp ak àdduna wërngal këpp di wax ne a ah, fas yéene na ñoo ñëw wax leen stratégie yi nga xam ne moom la ñuy def ci li nga xam ne mooy léewtoo bi ngay wax pour ñu daan corona. ci jotaay bi dinañu feggoog seen càmmeñ mun naa ko xëy noonu ndax li muy gëstu daanaka ci li leen li liggéey la est-ce que Sylvain nag dafa xaw a nekk fu sori Sylvain Landry Faye di bokk ci socio-anthropologue Sénégal yi nga xam ne nii wax dëgg fa yàlla xereñ nañu fu ne lañ leen di woo ci àdduna bi ci wàllu gëstu réseau relais communautaire Sylvain est-ce yaa ngi ñuy dégg. Sylvain mu ngi ba Canada. waaye dañoo fas yéene ànd ak moom ci jotaay bi Sylvain. dalal jàmm sa ñaari jigéen yi ma la présenté ñoo fi teew tey Adja Ndeye Fatou Diallo présidente réseau euh, Bajjanu Gox. Euh, Denise Soxna APC AP APDC voilà. jërëjëf euh, Abdoulaye maa ngi bu baax. maa ngi nuyu sama sama mama yi nekk ci plateau yi. Eh, di nuyu ehm, téléspectateurs yi yëpp eh, di nuyu aussi ehm, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi ñuy déglu ehm, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci xeexu corona bi ci jamono ñu toll nii maa ngi maa ngi nuyu ñëpp te di en tout cas di leen encourager ci liggéey bi. Sylvain nekk sénégalais nekk ci Canada te yóbbu ko fa. ma nga fa ci ñi muy encadré ci gëstu bi fu ne nag léeg-léeg yitte yóbbu ko fa ci ba ci xeeti feebar yi nga xam ne ni day faral di am épidémie yi fi jaar Ebola yeneen jaar na ci réewi Afrique yu bari xam-xamam dinañ ko sàkku ci seen taxawaay. Adja Ndeye Fatou Diallo présidente rajo Bàjjanu Gox yi man bu ma doon cokkaas dama naan xeex bi kat daa mel ni jàppoo leen ci wala book léwato bi ak corona bi mu ngi bëgg a yàgg te est-ce que yéen a ngi ci dëggantaan. waaw maa ngi sant ci question bi ma posé. ñun dañu yàgg a jàpp depuis Ebola ba tey tegguñu suñu loxo moo tax bi lii ñëwee bettuñu ndax boo seetee 557 communes yi nekk Sénégal dañ ko structuré bu ne am na bàjjen bu ko jiite 76 districts yi am na bàjjen bu ko jiite département yi am na ku ko jiite région yi am nañ ñu ko jiite ñoo ñëpp bi ñu boolee nag ci lañ ma def ma jiital leen te am nañu groupe boo xamante ne information yëpp lay jàll bàjjen yëpp yëg ko liggéey liggéey nañ de dañ ñoo boolewul dañ ñoo boolewul ba ma laajee ma wax la que jëli woo leen li nga xam ne yaakaar nga ni yéen ko moom kuy jëli dañ lay woo Cissé man boog niñ ma yare danga ma naan kaay ma ñëw nga ne ma ñii sey ñooñu ko moom waaye man rek rus na maa dem di jël dara te defuma ko mais terewul dama leen ne ku liggéey liggéey leen ku liggéeyul liggéey leen ndax bañ cay dugg dañoo tànn ci gox ak goxaat ñu nekk ak suñuy nawle ñu wóolu ñu ci ndaxte dafa am critères yu tàll bàjjen mu nekk ci yéen ñu dugal leen ci kon nag mbir mi mbir communauté la doom yi ñoo leen jur jëkkër yi suñuy ñooñ lañu góor ñi suñuy mag lañu ak suñuy rakk bu leen xaar kenn. ñàkk boole bi ci fan la parce que boo ko xoolee dinaa ñëw léegi ci Denise. Mm. président de la République woote woon na. waaw dalal. acteurs yi nga xam ne ni moom la jàpp ni mooy les forces vives de la nation. dalal leen ci palais de la république. kujje mhm. politique gi société mhm. civile syndicat yi ak nangam ak nangam. Mhm. foofu ngeen yaakaar ne war woo wala ci opérationnel yi nga xam ne ñoo jiitee fii noonu nañ ko tudd ministère de la santé pour ne leen li mooy seen cër. wala yéen xam ngeen seen cër waroon ko doxal. waaw ministère de la santé ñoom xam na ne ñun ak ñoom ñoo far dañuy wax ak waaye am na ci nag au niveau de la base fi ñu dëkk district yi boole nañu ICP yi boole nañu du dëkk mais ci kaw dañ ñoo boolewul te lëf bu amee bu demee ba am président national am départemental am district am commune su ñuy woo ñooñu ñëpp ñoo ñu woo ñëpp kenn du ci dugg ci kër xamuñu réalité yi bàjjen yi ak acteur communautaires yi ak ku mel ne APDC yi ñoo ko xam kon waroon nañu caa sagal nañu lii la ñu bëgg ngeen def ko ñu xool ndax ñun bi ñu woowal it dañuy liggéey ndax suñu bopp la ñuy defar ndax président ñun ñoo ko waat ci kanamam am moom partenariat waaw boo xam ne dañ ko ne dinañ ànd ak yow ci lépp lu yëngu ci développement ci xale mag ndaw ak feebar kon même bu ñu woowal it liggéey nañu résultat yi bare dugal nañ ci sunu loxo te duñ mës a dellu gannaaw wooyi deuxième la fii la ñu dëkk ay bàjjen nañu te bàjjen mooy baay moom mi nga xam ne moom moo jiite dëkk bi su taxawee. di xeex lëf dañ ci dugal suñu loxo ministère de la santé xeex ko ñu dugal ko ci ñëpp dugal ci seen loxo ba ci seen télé bi kon du na yaaj ay yaay lañu xaaruñu kenn mais rafetoon na daal ñu boole ñu ca sax rek la mais ñu boole ñu dem ku ñu boole ñu dem te ñoo ngi ci te ñoo ngi amit ay résultats ñoom xam nañ ko yàlla mi itim xam na ko suñu médecin de district xam nañ ko suñu ICP xam nañ ko. mais mbaa du delluwaat rek ci yëfi mbootaayu jigéen ku nekk di yaakaar ni dañ laa war tudd woo la dugal la ci. wala du man sama wàllu bopp man xam nga ne ko ma woo président man sagal na ma wax dëgg yàlla ci turu bàjjani kon du man mais boo jiitee da ngay defal ñi ci suuf ndax boo nekkee ci kaw ñi suuf a tax bul ne man feeñ naa rek ñi ci suuf war ñoo feeñ ndax tey sunu ma woowoon dinaa woo 45 départements yi mënuma leen woo mais mën naa woo les 14 présidents wala ma jël ñetti nit na leen dem leen man sax bu boobaa mën na maa bañ a dem. pour ñooñu kontaan rek liggéey bi jaar yoon noonu rek laa ko duggee mais ku ñu woow li ñu ngi ci biir te incha allah ñoo ngi ñaan yàlla jëlee ko fi te lu ñu mën dinañ ko ci def. lu ñu mën a dabu la. waaw weesoogul déedéet. Denise Soxna. maa ngi lay cokkaa sànq naan mbokk yi waxi naan géejewaay. dalal jàmm gannaaw loolu. foofu est-ce que gis ngeen ni yéen sofantal bi am na wala boog jëlal ngeen seen bopp bañ te dugg ci gox yeeg goxaat yi. Euh, damay wax ne au niveau de du département de Guédiawaye ñun sentiroo ñu loolu ndax wax fa dëgg yàlla sunu préfet ak ñi nga xam ne moom la boot muy chef de service départementaux yépp que ce soit muy ministère de la famille mm. action sociale santé muy médecin chef euh, Guindo Diop ak ñi mu àndal ak présidente bàjjenu gox yi imam yi chef de quartier yi parce que su ñuy wax acteur communautaire ñoo ñëpp ci lañ. chef de quartier yi APDC yi ñëpp lañu woo ñu dem toog pencoo ku nekk wax sa xalaat ci li nga xam ne moom mooy xeex bi yàlla defal ñu sutura nag am nañ ay réseau au niveau départemental mais am nañ ay réseau au niveau communal parce que APDC yi ni bàjjenu gox yi structuré au niveau national. noonu lañ structuré au niveau national mais au niveau départemental Jarga Cissé moom mooy sunu président man ma nekk point focal ñu noonu lañ koy tuddee communal muy commune waqinaan Nimzatt tey ma teewal ko fi ànd si nag ak juróom-ñaari nit yu nga xam ne man ak ñoom ñooy bokk ci xeex bi nga xam ne daan corona la ñu am ay commité yu ñu taxawal au niveau communal ñi nga xam ne ñoo nekk ci mairie bi woowaat comme ni préfet defoon acteurs yëpp ñu ñëw ñu dem ci biir quartier yi defaat ay comité muy comité local daan corona bi ñun noonu la ñu organiser wa tey ba nga xam ne lépp lu nga xam ne dañ koy def comme action dañuy yëkkatindoo jàppandoo dóorandoo suñu paree dellu siwaat sunu district toog waxtaan wala ñu dem ci si préfet waxtaan fa ñu delloo si waat ñu wax ji tey ji démb ci ngo ci démb ci suba la ñu woote woon réunion pour restitution parce que amoon nañ ay cas yu fa am ñu woo maire yi woo président yi woo présidente yi pencoo ku nekk joxe sa xalaat tey jii ci ngoon heure bi may wax ak yéen ku mel ni Sylvain mi muy monsieur ñaa ñu koy nuyu de passage ak professeur ñaa ñu koy nuyu de passage ak docteur Diop ak suñu ICP sunu sunuy infirmier Njawar. professeur ñaa Cheikh Ibrahima. Cheikh Ibrahima. ak docteur Ndak Diop. waaw mhm. ñoom ñoo fa nekkoon jour bi nga xam ne euh, cas bi am na waxtaan ak ñun laaj ñu stratégie yi nga xam ne moom lañ développé woon ñu wax leen ko ñu laaj ñu lan lañ xalaat ci li nga xam ne moom lay moom la fas yéene def ci fan yi nga xam ne lii génn na ci ñu wax leen ko tey jii ñu ngi def restitution pour xool nan yan stratégie la ñuy développé waat ak ñoom yan communication lañ ñuy jàppale pour ñu mun a taxaw taxawaay bi mat. ñu tudd yëf yi parce que aussi vraiment man dinaa leen dégg rek ngeen naan ñu ngi am résultat ñu ngi am résultat. Mhm. bàjjanu gox yi bu ñu nekkee ci gox yi te yaakaar ni déggal nañu leen xanaa waay waaye bu ñu nee couvre-feu am na. bàjjan bi bu toogee gis xale yi nga xam ne nii yar na leen gis leen ñu màgg ci kanamam ñuy génn ci mbedd mi di taxawaalu xanaa bàjjan bi boobu amatul kàttan amatul gëdd pour jóg wax ñu dégg ko parce que bu fekkee ni dem na ba toll foofu est que bàjjan bi kon nit ñaa ngi koy dégg Denise. waa man euh, foofu dinaa ci wax tuuti xam nga euh, mun naa wax ne population boo gis ay nit yoo gis rek dina am ñu nga xam ne dinañ dëgër bopp. Mm-hmm. du ñu noppi nag du ñu tàyyi di wax suba di wax guddi di wax bëccëg bañ nañ ko ba balaa couvre-feu di commencé sax dinañ jël suñuy téléphone di woote kër yi téye leen xale yi mais ay magum jëmm ay borom kër lu xale yoo nekk ci mbedd mi de ay borom kër ñooy nekk ci mbedd mi ñooñu ay responsable lañ responsable nag bu taxawee ci mbedd mun naa wax ne loi moo war a taxaw daan ko ay nawleem di gis bu ko defee keneen dootu am sañ-sañ def ko ñun de au niveau de Wakhinane Nimzatt rawatina man gox ba ma dëkk Angle Mousse maa ngi wax ci tele te sunu yaa monsieur le commissaire Touré mi ngi may dégg gisu fa ku fay taxawaal ndax li ñuy liggéey wax naa la dañ koo organiser ñun dañu organiser suñu koñ ndaxte dañu xam sunu quartier délimité ko ut ay responsable de zone bàjjanu gox ak relais ànd di sensibiliser suba ak ngoon guddi ak bëccëg ci li nga xam ne moom mooy daan corona bi ndax kat mbir balaa kenn di jógee ci biti ñëw di la ko jàppale yow yaa war a taxaw takk sa sër takk sa tubay xeex loolu te yaakaar naa ne lii ñuy def boo leen ñëwee waqi naan nimsaar rawatina angal mus di ngeen xam ne li ma wax dëgg mais fan yi quand même lu doy waar feeñee quand même ci ah ci clinique boobu nga xam ne nii nekk na fa maire bi sax dem na fa ñu tëjlu ko mais lu fa nekkoon la lu ne fàng xam nga loolu aussi peut-être bokk na ci liggéeyu bàjjenu gox yeeg notable yi bàjjenu gox daanaka mooy notable yi. Mm. di war a xool lu jaadu ñu dox ko lu jaaduwul it ñu yedd ci nit ñi ñu may leen njekk nangul leen ko. Mm. waa xam nga monsieur Cissé. Abdallah. Mm. Mm-hmm. bàjjenu gox na dafa am fu mu yem. <laughs> mënul lépp. xam nga lu mu mën. alerter. jël loxoom duut baaraam ne lii kat lii kat jug leen ci nit ñu waxuñu ñu yan sunuy loxo ne wooy lii jóg leen ci ña ca war a jóg nag ñoo ca war a jóg ñun duñu ay technicien de santé mm-hmm. danoo am njiit njiit yaa nga fa loolu bu amee ñoom ñoo ko mën a dox ñoom ñoo ko mën a wax ñun mënuñu koo dox ñu am préfet am police ñu ciy wax suba di ci wax ngoon soo duggee sama suñu groupe Wakhinane Nimzatt ajjuma ajjuma ñu ngi ciy wax ne lii buñ ci jugul musiba buy ñëw kër yëpp lay dem mais nag soo xoolee fréquentation bi bëriwul ay nit yu dëkk ci quartier bi di fa dem bëriwul soo waññee benn doone ñaar ndaxte ki nga xam ne moom la feebar bi dal donte fa la ko jële amul woon habitude di fa dem mais nag yàlla bu dogalee kenn mënu ci dara. Adja Ndeye Fatou Diallo présidente réseau national di bàjjanal gox xam nga bi yëf yi demee ba ñu ne cas communautaire la. est-ce que sax ñu ñëw noo xalaat ni ak ah, kon de yomb na parce que am nañ ñoo xam ne nag ci communauté bi ci communautaire yi. am na ku ma wax sànq sax ni. débat bi cas commune euh, relais communautaire yi mu ne ma yaa dëgër fi di invité cas communautaire ma ko déedéet relais communautaire la ñu invité xam nga mënoon nañ ko xalaatee noonu ni buñ demee ba ñu ne ci communautaire bi la léegi mhm. danañ ko gagné parce que am nañu ñoo xam ne ni ñoo fi nekk yey nañu mhm. ci wàllu xeex boobu moo doon gën a yomb mais daf mel ni mhm. foofu mateewul quand même ci seen taxawaay taxaw nañu de waaw ah, mais matul de sama toogaay euh, soxna si mën na sëkk Alaaji Cissé di nga sama toogaay nii toogaay la boo xam ne dafa yaatu ndax niveau national la du toogaay yi fi ma dëkk am ngay dama ne am naa ko te du ma tëddi te aw ma information nee naa la yay cinq cent cinquante sept communes dañ ko structuré mhm. am workshop groupe boo xam ne ne am coordinatrice ndax man mënuma lu ne ma jiite ko muy Adja Diary Dramé ma koy nuyu de passage lii bi may ñëw nii wax na ko Sénégal yëpp a ngi koy seetaan te ñoom lu ñu liggéey noonu laa koy xame te man leer na ma mën naa nekk seen avocat ñi ngi liggéey waaye nit ki buy liggéey it ah war naa mën a protéger wu de Cissé hmm. fi ma waxee mooy danoo amul sax lu ñu protéger du gant du masque du li ñuy laal alcogel te loolu tamit bàjjani ay jaboot lañu maanaam xeex bi ngeen nekk nii amoo leen munition. déedéet dem guerre la te booy dem guerre nag te amoo munition boo amee fetal te amoo bal boo ci dugal moog daraayam mais ñun laajuñu lan loolu rek la ñu bëgg ngeen seetaan te liñ ci jot a def nii ni ko sama naatangoo Denis mii ndax bàjjenu gox la APDC la. xam na ne bu dul woon bàjjen yi mu ñaaw. kooku dañuy défier ku ne ndax xaaruñu kenn mbir mi cinq avril euh, mars fekk na dugg nañ ci école yeeg daara yi. au niveau national. am sunu ay partenaires yoo xam ne ñoo ñu doon may ay kit moom mii xam na. Ah, partenaire am moom est-ce que est-ce nekku leen rek di di bàkku parce que boo boo. bëgg déedéet bàkkuwu noonu li ñuy wax dugguloon mu ñaaw te yëf yaa ngi bëgg a ñaaw. li ma la wax nii da xam ne 15 millions euh, d'habitants nga yore. Mhm. waaw ñun 400 557 communes la te ci kàttanu yàlla. man leer na ma ne du yegg fenn yàlla sañ na ko mën na ko. ndey Fatou man kooku dinaa la ko tuuti waaw. Mhm. xam nga ñun fànn bi ñu nekk. Uh-huh. neexul ne mën nañu natt. Uh-huh. xay na natt bu nga xam ne nit ñi dinañ ne voilà lii la. waaw suñu xoolee processus bi ñu ne. waaw communication. Uh-huh. information. Wow. sensibilisation. pour qu'il y ait un changement de comportement pour y changement de comportement. waaw ndax affaire bi feebar bi feebaru. changement de comportement processus la xaaral xaaral ma wax la rek tuuti rek may ma mm-hmm. tuuti. Mm-hmm. xam nga ki nga xam ne da nga ñëw xamul dara. waaw wala bu xamee it am na xam-xamam fu mu yem. Mm-hmm. da nga koy gunge. Mm-hmm. nga xamal ko. Mm-hmm. pour lan pour mu yéeg benn marche escalier. escalier boobu. mooy lan pour mu xam bu xamee. mu yéegaat beneen marche mooy ban. mu jëfee. mu jëfee. su jëfee. mu toog ca. bu ca toogee. mu mun laa defal waaye kese. maanaam mu mën a laa uutu mhm. fa nga ne taxawu la tey bu ma jëlee ñun suñu exemple waxi naa Nimzaat tey jii suñu ay bénéficiaires ñu nga xam ne ñun ñoo leen doon encadré mhm. tey ñoom ñoo nekk suñu ay relais communautaire ça veut dire quoi mhm. que liggéey bi ñuy liggéey am na fu nga xam ne ma nga fay am ay jéego ñaareel ba xeex corona bi gis nañ ne tey may naa la nga yónni ku la neex nga dugg mhm. wàqi naa nimzaat amul biir kër booy dugg ci buntu kër gi fekkoo fa ñu teg fa laabme mu am saabu përngalam bu dee daa ndaw sax bu dee cent vingt-cinq Saliso dina lijjanti loolu nga dem lijjanti ji ko man li may wax dama kaa wax ci tele mhm. dina ko fa gis soo ñëwee ci point stratégique yi tey mhm. fu mel ne Baye Laay fu mel ne sëñ Assane angle marché bees teg nañ fa ay bërigo mairie moo ko indi mhm. saa su nekk am na ñu koy saytu muy am ndox di am raxasukaay mhm. nit ñi di raxasu saa su nekk mu am ku leen di sensibiliser te loolu ah liggéeyu bàjjanu gox yi APDC yi relais communautaire yi la def nañ de Sylvain est-ce que Sylvain mu ngi fii <laughs> Sylvain Landry Faye euh, socio-anthropologue ah wër nga àdduna wax dëgg fi yàlla surtout réewi Afrique yi ci nga xam ne suñu structure xaw na ko niru gis nga relais communautaire yi ñu fi dalal tey euh, am nañu gëdd ci bi diiwaan bi mais est que li confronté wulu euh, li xew nii est-ce que confronté wu leen à la réalité ba xëy na ñu gis limitu xeetu relais communautaire bu ni mel. Euh, jërëjëf Abdoulaye maa ngi rafetlu waxtaan wi. Euh, di rafetlu aussi euh, euh, kàddu yi fi yëkkati mu jëm ci liggéeyu relais communautaire yi en général ba bàjjenu gox ci relais communautaire yi la bokk ak APDC loolu def ñuy andiwaat ci ñu définir d'abord ñu xam li ñuy waxtaane su ñu nee cas communautaire relais communautaire pour que ñu mën a mën a euh, pour ma mën a tontu sa sa question ci waxtaan gi ma jot a dégg cas communautaire dafa nekk loo xam ne ñu ngi ne mu ngi ci communauté bi euh, gëm naa ni relais euh, xaarul rek kaa communautaire parce que ba épidémie bi commencé ba léegi cas yi ñu ngi ci biir communauté bi dégg nga de ñu ngi ci biir communauté bi cas communautaire am na sama benn naatangoo professeur Adama Faye bu ISEP bu ma liir bu wax ne que buñ ko jàppee rek li nekk ci biir communauté bi day day firndeel quelque fois euh, euh, problème mu surveillance épidémiologique day fekk na dafa am ay cas contact mën na nekk ay cas contact yoo xam ñu ngi ci biir communauté bi ba ñuy lister ñu raté liste le parce que il faut que ñu définir concept yi mu leer suñ fa jógee relais communautaire yàgg na ci Sénégal depuis les années quatre vingt premier programme yi créé l'association des relais relais polyvalents ak le programme BASICS ñoom ñoo njëkk a liggéeyu relais communautaire relais mooy ki nga xamante ne moom mooy jottali te mu nekk ci biir communauté bi. Mmh. moo tax catégorie boobu depuis lors avant que bàjjani gox yi di ñëw en 2009 catégorie boobu bëri na ay ay ay ay ay ay façon am nañu euh, li li cellule de santé communautaire programme euh, santé communautaire bi def distinction entre agent communautaire de santé ki nga xamante ne am na matrone yi am na euh, DSDOM PALU mooy distributeur de soins à domicile mooy ñi nga xamante ne dañuy jottali dañuy sensibiliser communiquer mais ñoom aussi hmm. mën nanoo faj faj gu sew gi nga xamante ne moom la ñuy def au niveau des cases de santé loolu mooy acteur communautaire de santé bokkul ak APPS acteur de prévention et de promotion de la santé foofu la ñu dugal bàjjanu gox yi foofu la ñu dugal APDC yi moo tax ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc suñu leeralee loolu ba pare dina ñu mën a xam ne que euh, li li tax ñu def loolu tey Sénégal leer na ministère ne que mënul gérer santé sans les acteurs communautaires mënul ne léegi depuis initiative de Bamako ci la ñu wax ne que communauté yi population yi dañoo war a participer ci santé ci ñaari fànn ci financement bi ci la ñu commencé ne état mënatul fay pour ñun ñëpp ñun dañuy yëkkati suñu xaalis fay ci poste de santé yi su ko defee mbir yi mën a dox ci la ñu ne it population yi dañoo war a participer ci décision ci lañu ñu créer comité de santé mm-hmm. donc acteur communautaire du tey yàgg na dans le domaine de la santé seen utilité kenn wax kenn discuter tu ko. Sylvain ci fi ñu leen soxlaa tey. ñu ne relais communautaire bëgg mu jottali. kàddu mhm. sensibilisation parce que xam nga xeex bi. ñu yem ci mhm. feebar bi quand mhm. euh, dafa am glissement boo xam ne dafa am. on a presque du médical. Euh, combat communautaire ci biir société bi tey waa kër docteur sax dañuy wax ni fexe leen ba bu leen feebar xam nga beneen feebar bu la dalee. da ngay dem kër docteur mm-hmm. ñu téye la fa faj la. waa kër docteur tey dañuy delloo xeex bi ci société bi ne waay waay. faru leen pour bañ a ah, yegg si sax ci ñun Abdoulaye mm-hmm. Mm-hmm. loolu laa buggoon njëkk a parce que waa kër docteur ñoo njëkk a def erreur boobu épidémie ce n'est pas seulement une réalité biomédicale xeex bi ce n'est pas d le début xeex bi du tey. la nekk communautaire xeex bi depuis le début la nekk communautaire parce que soo xesee ba wax épidémie su fekkoon ne que masque su fekkoon ne centre de traitement doy na technique biomédicale doy na pour que ñu gagner épidémie konoon épidémie bi jeex na bu yàgg épidémie bi dafa communautaire la lutte et communautaire depuis le début parce que communauté yi si seen biir la mbir yi di xewe loolu mooy caractériser épidémie. communication. Mhm. sensibilisation lépp. Euh, euh, fan yi laa génnee benn papier boo xamante ne maa ngi maa ngi euh, critiquer communication institutionnelle ak communication de crise yorewul épidémie communication de proximité ci biir quartier yi nga identifier ñi nga xamante ne ñoom ñoo légitime maanaam maanaam ñoom ñoo am kàddu ñoo am màkkaan loolu dinga nga ci fekk tey bàjjenu gox yi dinga nga ci fekk agent poly euh, polyvalent euh, porteur de dynamique communautaire. mais Sylvain mais Sylvain xam nga ñu ngi ci bàjjenu gox yi comme ñoom la ñu waxee ñoom lañu fi woo tey ñu ngi ci mais taxul. man dama effectivement comme ni ñu ko waxee dama yaakaaroon ne bu glissement bi demee ba ñu ne combat bi communautaire la am nañu loo xam ne ñun tey moo ñuy protéger muy bàjjanu gox yi ak relais communautaire yi mais on a la preuve que xëy na doyul matewul te xëy na du solution bi aussi am déet. solution bi la mais nañu jàngat nañu jàngat li tax doxul parce que bu ñu fàtte bu ñu réere mbir. parce que su ñuy su ñuy critiquer aussi c' est pour que mbir yi avancé bu ñu réere mbir nekk bàjjenu gox yi ci yar anam la ñu tànnee ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk bàjjenu gox il réalité le Sénégal dafa am benn politisation dans le choix des bàjjenu gox chef de quartier yi wala ñeneen ñoo leen tànn mais est-ce que ñooñu ñoom ñooy les légitimités est-ce que ñooñu porté nañu li nga wax sànq dëgg la est-ce que porté nañu voix boo xamante ne bi ñu taxawee ci quartier bi ne bàyyi leen xale yi bàyyi donc dañu euh, le combat est communautaire mais su fekkee nekk tey bàjjenu gox yi seen taxawaay permettre ñu egg ci liñ leen doon xaare war nañu mën a dellu ginnaaw muy bàjjanu gox ñeneen xool te am na étude yu bëri yu wone qu'il y a une certaine politisation dans le choix des bàjjenu gox y a des y a des zones où nit ñi dinañu def consultation populaire maanaam ñëw toog ci pénc ma ne ah kan la ñuy tànn pour mu def liggéey boobu bokkul ak foo xamante ne chef de quartier bi day toog ak représentant parti politique jël benn bàjjanu gox ne ko yow yaay bàjjanu gox kooku su taxawee wax ñu ciibatu ko loolu day andiwaat li ñuy wooye la légitimité dans l'action communautaire kan moo légitime maanaam kan moo am màkkaan ak taxawaay pour mën a jël wo euh, message ñëw wax ko ci biir communauté yi nit ñi dégle leen benn mhm. ñaar communauté du benn communauté la ñu nekk am na place yoo xamante ne yi bàjjanu gox su taxawee lu mu légitime légitime su waxee duñ ko déglu parce que ci place yooyu moom amu fa maakaan amu fa baat amu fa baat am na foo xamante ne góor moo fa mën a taxaw wax fa loo xamante ne ñu dégg ko. bajjanu gox sax loolu tamit euh, euh, andi féminisation. Sylvain dañu dem ba tey Sénégal dañoo yaakaar ne que. Sylvain rapidement parce que foog ma dellu si waat ci plateau bi ay jigéen ay jigéen ay point junj nga ay point Abdoulaye loolu dama ko bëgg leeral balaa ñoo continuer. Uh-huh. tey dañoo dem ba yaakaar ne que euh, relais communautaire jigéen la war a nekk la preuve. yow tombé dans l'erreur. bàjjen bu góor nag amul de. oui oui xanaa kon ñu sànq soppi baat bi def ko nijaay def ko nijaayu gox. voilà dans l'action communautaire am na ay nijaayu gox. am na. <laughs> am dans l'action communautaire. am na le cercle des maris. Mm-hmm. et cetera mais aujourd'hui euh, la la la politisation dafa dem ba nit ñi yaakaar ne que ñu waxee action communautaire. Mhm. jigéen kese moom mooy mooy action communautaire. loolu c'est à corriger et ça ça fait que dans certains endroits. <laughs> jigéen su taxawee wax yenn yi. <laughs> wallaay su fekkoon ne góor moo fa taxaw. Mhm. su ko waxee ñu déglu ko. Sylvain maa ngi ñëwaat léegi <laughs> parce que li nga junj sax. Eh, soxna si. am na benn bu mu wax boo xam ne foog ñu taxaw ci. est-ce que tey wax dëgg fa yàlla. Mm. képp kuy bàjjanu gox. Mm. yaakaar na ne am na lu ñu ko ruusee ca fa nga xam ne fa lañ ko tànnee ba bu waxee ñu déggal ko bu waxee comme ni mu ko waxee duñu ko ciifatu ne ah moom day xëy na boppam la représenté est-ce que du loolu aussi. Mm-hmm. moo sànq tànneef bi taxawaay bi ba tey xëy na kàddu gi jotewul. déedéet man loolu mënuma cee d'accord. man nañ ma tànne bañ may tànn yëguma ko. mais bu ñu ko tënk ci benn nit rek. dama ne globalement te loolu moo am mhm. globalement. ci mhm. parce que ku ne mën na layal boppam. 2010. Mhm. bi ñuy tànn formation la ñuy defal te bu ñu rek nekk bàjjen di xoole. direction de la santé de la mère et de l'enfant moo ñu far. est-ce que du foofu mooy erreur. parce que est-ce que format parce que bu xam nga dañ ko jëlee ci euh, réseau traditionnel. waa léegi turu gox muy koo euh, xamante ne nii. Cissé dafa wax lu ko kii de dama bëgg nga dégloo ma xel. ndax ñun mënuñ ci nekk fukki at ak benn nit duñu ko gën a xam liñ ci daj yàlla lañ ko seedeel te ñu ngi ci ba tey te dara mënuñoo dañ dañoo tànn ci fi ñu juddoo dëkk fa bàjjenu gox ca bañ ñuy tànn du n'importe qui di nga nekk nit ku am mbooloo. pour boo jógee ci sa kàddu boo ko tasaaree mu mën a dem nit ku ñu respecté nit bu nekk référence nit ku am fulla am sekkere mhm. buñ la soxlaa jot la bu jóg jotee am nga laa biir gunge nit ñun heure bu ne la ñuy dox mhm. état d'urgence gi dañ ciy dox di yóbbu ay nit ñu am doom ba tey ndax du nu bàyyi structure de santé yi kon critère ba ko taxoon jóg dara jógu ci ñu dem ba léegi ñu ngi ci éducation ñu ngi ci euh, ménage ménage yi ñu ngi ci protection de l'enfant mhm. ba nga xam ne tribunal sax bareetul ay sëy yu kii li ñuy def yàlla lañ koy seedeel te duñ ci yegsi ba léegi kenn duñu découragé góor dëgg la waaye il n'y pas de développement sans femme te jigéen mooy sos lu ne moo nekk ci kanam moo nekk ci gannaaw ndax mooy yaay mooy bàjjan ak góor tam mooy papa mooy ni góor mooy papa ah, mais boo déggee papa boobu jigéen dafa dem dafa dem nit ba pare <laughs> waaw moo tax ñu daal di valoriser bàjjen ci biir kër ndax yow mi mhm. tey boo meroon sa rakk bu jigéen ñëw ñaan la da koy may ñu ne comme système de santé bi sooke na nañu former ay bàjjenu gox man de du ma bon exemple ñuy mën ma may la ñuy mën <laughs> bu ñu demee ci nit ñi jële fa xam-xam ci kër docteur intégratrice la ñu mhm. entre le personnel soignant et la communauté moo tax Denise ne duñu faj mhm. du docteur duñu dara fi ñu waree mi dañuy yem dañ fay yem ñu dem ba yëfi yaatu mhm. petite enfance bu bëggee wax ci waxu xale boole ñu former ñu mhm. éducation boole ñu daara yi boole ñu protection boole ñu tribunal di ñu woo di ñu former ba koo ci gis am na diplôme parajuriste kon tekk nanu ay nit la ñuy déglu nit ki la muy def ba kenn du ko déglu ci quartier kenn mënu ko ko dindil teg ko ñu ko xamit ci yow dootoo doon bàjjan fii laa ko waxee ndax kàddu la ñu bëgg ci nit ak dëggu ak ngay jóg ngir nit ñi mural leen seen sutura te sawar mais bu dee bàjjen laa rek dinañ ko identifier ndax ñëpp la ñu xam li may wax wóor na kii. critères yi mu laaj dikk ki da koy bu boobu mënatul ne mënatuma ñëwut ñeneen parce que danoo bëgg a avancer. amoo leen ay tendance ak yooyu. déedéet wax dëgg yàlla maa ngi sant bu wér. Mhm. gisuma tendance déggoo nanu cëral na ma lii may wax leen na Denis avec ma modeste personne. may remercier tous les bàjjen du Sénégal ndax c'est pas évident que ay millier de personne nga jiite leen te amoo loo leen defal te lii may wax ñoom laa ko waxal. Hmm. ndax am na loo xam ne moo mënee jënd saabu bàjjen ba nekk ca fond fond te li ma am xëy na amu ko mënu ko. Hmm. te booy jiite da ngay jiiteel ñëpp bul seet yow li nga mën moo tax ma ne amuñu jumtukaay direction de la santé de la mère et de l'enfant am na lu mu ñuy dimbale ne ma commencé lii ci Dakar. après ñu def national ndax man maa bindoo ne lu ma defal Dakar dama koy bëgg a defal waa Kédougou wala waa Foundiougne wala waa Fatick. ndax loolu mooy njiit. wala waa Mbour. wala gii gën a jegeñ région de Thiès. dëkk bu mag bi waaw. Mhm. du loolu mooy dëgg. ëllëgee mhm. ñëpp daal di ne sunu président ñëpp la yemale. mais mënuñu maa jox dara ma yemale ko Dakar waa dakaar xam nga jigéen rek ak WhatsApp yi ñeena dama leen a xeeb te ku fi falu ñi ci suufa la fal. te ñi ci àll bi jox naa leen cër lool dem naa visité naa les 557 communes man mi. mais est-ce que du. <laughs> ndeysaan <laughs> est-ce que du WhatsApp yi moo tax aussi seen kàddu rëcc leen parce que xam nga relais yi fi ñu ko doon xaaree. sunu kàddu lu mu ñu rëcce. muy kàddu gi di jóge ci moom di dem ci ñëpp. mais xam nga bu ñu demee c'est vrai que ay xeeti xarala yu méngoo ak jamono. waaw waaw mais ñëppay wax. li xam na yow mën nga joxe yow kàddu gi. Mm. mën nga joxe sax ci ci cadre feebar bi ñu nekk nii. Mm. nga ne li ak lii la ñu digle. Mm. am ko for ab kàddu ci mbedd mi dugal ko ci groupe ba. day am ah, xëy na léegi nag loolu ba mu am bu amee déedéet yàq ko dañ koy rectifier yenn saa yi ñu dugal groupe yu doy waar yoo xamante ne mm-hmm. seen audio yi lu ñu jot rek ne lii day faj mais. Mm-hmm. coordinatrice bi danaan na génn. na génn moo koy effacé taxu noo jóg dictalu ko docteur ci loolu la ñuy wéy. mais terewul xëy na am na xel yu mu jaxase balaa moo. déedéet ñun suñu côté daal li ma leen bëgg a mhm. wax. Mhm. ci turu bàjjenu goxu Sénégal. nee leen ñu rek am leen lu ngeen protégé woon def leen lii def lii ngeen xool ñu dinaa ñëwaat fi wax la ko ci kàttanu yàlla bu ñu ko fekkeetal ko. mais lu tax loolu ñu fàtte leen ci en fait. ah loolu nag mënuma koo xam ndax li ci xelu nit mënoo koo xam mais ñun li ñu war a liggéey Denise bi xam na ko. en tout cas ñu ngi koy liggéey te du tey depuis ébola mhm. ñoo ngi joxe chaque le 25 suñuy rapport ci poste bu nu gën a jege. ñoo ngi ànd ak ay nit di leen dimbali ci suñu wërsëg. ba fi may waxee yooyu ñoo ngi gumbe ay nit. te expérience boobu yëpp nekk fi Ebola expérience boobu yëpp nekk fii lii comme ni ma ko waxee sànq dañoo yaakaaroon ne bu demee ba nekk communautaire. Mhm. ñoo ko mën a faj du keneen ah, waaw mais. les acteurs communautaires. jàppoo leen ci jàppoo leen bi les APDC les bàjjenu gox jàpp nañ ci <laughs> dañ lay dugal. dañ lay dugal nag bi nga ñu woowee bi nga ñu woowee danoo ñëw. <laughs> waaw ah waaw. lu tax lu tax ja dugal nañ dugal nañ ci suñu loxo. Mhm. te xeex bi boo xoolee fi mu hmm. jógee ba fi mu yegsi hmm. feebar bi xeex bi nekkul xeexu benn nit nekkul xeexu bàjjanu gox kese déedéet chaîne la neexul xeexu APDC kese. chaîne la. Hmm. neexul nekkul xeexu relais kese. xeexu doomu aadama bu yewoo ci àdduna bi la. parce que man su ma nee man bàjjenu gox yi rek ñoo ko war a xeex jafe-jafe day am. day am déedéet mu ngi koy dañoo jaaxle moo tax ñu wëlbatiku ci yéen. bi ngeen walbatikoo ci ñun nag foofu la. Mm-hmm. ndax ndaxte ñun ñooy ñun ñooy njaay yi. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee. ñun ñooy mag yi ñun ñooy jigéen yi ñun ñoo nekk ci kër yi. ñooy jëkk jabar yi. ñooy jàppale nit ñi leen fexe xale yi toog jàpp seen njàmbur. ah déggalu ñu leen ci mbedd mi. lu tax nga ne déggalul ñu. ah yow gisoo xale yi. ah ñooñu seen yaay seen bopp waaw léegi xanaa yéen amatoo leen emprise. parce que loolu mooy loolu mooy bàjjenu gox li ngay wax nii dafa am ay phénomène de société. waaw mhm. tey. mais bi ñuy sos bi ñuy sos bàjjenu gox xëy na loolu moo taxoon ñu am ay relais ci biir société bi ba fu ñu waxee ñu dégg xeex bi bu ko jël rek ne xeex bi nangam ak nangam dafa am ay paix de société. Mhm. tey jii am na lu bëri lu nga xam ne société bi moo bindoo noonu. te boo xoolee ne xeex bi lu bëri par rapport yeneen dëkk yi corrigé nañ ko. wallaay te bàjjan yi ci lañ relais yi ci lañ. waaw APDC ci lañ. <laughs> communauté bi chef de quartier yi. imaam yi ñëpp ci lañ. Mm-hmm. lu tax ma wax la loolu damay dellusiwaat léegi ci Sylvain li mu waxoon tànneef bi mm. tey bu ma jëlee kii wax na bàjjan man APDC acteur. porteur de dynamique communautaire boobu nga fi toogee dëgg ñu sosoo ci ministère de la famille xëyuñu rek ne leen soo leen xoolee ministère de la famille dafa am au niveau départemental benn service départemental bu fa ne bëriwul ay nit mu war a su ma jëlee suñu commune mu war a suñu suñu département mu war a mm-hmm. sillonné ci cinq communes d' war a jotale jigéen ñi nekk ci commune bi yëpp ak góor ñi war leen jàppale ci lépp lu nga xam ne yëngu-yëngu askan bi la mu gis ne am na saa su ñëwee am na ay nit yu taxaw indi ma bindal la kan ngay seet foo jëm fële la nekk est-ce que mën naa la jàppale ñu ne ñii kat kenn wowu leen kenn fayu leen kenn joxu leen dara su leen xëccee ñu ñëw ci ñun suñuy yónnee yónni leen ñuy wax waxal ñu waxal ñu buñ paree ñu defal ñu rapport indil ñu dinañ li ñu soxla ci quartier bi wala ci gox bi dinañ ko am loolu moo indi APDC biñ ko defee en 2011. bi fi Ndeye Khady Diop ñu koy nuyu de passage nekkee defal ñu formation kenn man ne du ma ab du ma PDS dama mm-hmm. baat damay wax ci télé du ma PDS du ma APR est-ce bu ñu tàmbalee wax duma lii rek du fa la yàqoo. waaw mais damay wax ne duma ko. moo tax nag aw ma coloration politique. Mm-hmm. te commune ba nekk. PDS jaar na fa maa ngi fay liggéey ba tey PS jaar na fa maa nga fa APR ñëw na te saa su nekk dañ may woo. Mm. kon li may wax leer na te li may def it dinañ ma déglu te dinañ ma laaj sama xalaat. Mm-hmm. di nuyu de passage madame Cissé chef de service départemental bu. Euh, développement communautaire bu Géejawaay ku baax bi mu fi ñëwee yàggul janvier la fi ñëw sonnul tàyyiwul processus su Covid bii. mi ngi ci sa mbokk la. madame Cissé sa jabar ñun ñoo mel noonu Cissé ñun daal. ci côté bàjjenu gox yi ni ko ni mu ko waxee. ndax man daal fi mu toll nii xam na laa bëgg. lan nga bëgg ma waxal la wax ma kañ ngeen di léewatoog yëf yi. ba daan ko ñu daal fi nii loolu ah. bu ñu fi jógee nii. xoolal li ma lay wax ne. xaaral ma yeggali Denis seen ñëw bi am na njëriñ quoi bàjjeni bàyyi leen ñu wax. Uh-huh. suñu fi jógee léegi wax. Uh-huh. ak junj doy na borom xel. Uh-huh. defoon nanu gaa fu ñu toll ak média fu ma mën a toog dans les radios de la place dama naan leen bu leen xaar kenn. ku leen boole liggéey leen ku leen boolewul liggéey leen tey laa ko gën a wax te dinañu gën a renforcer wu suñuy jëf ndax nee nga communautaire. communautaire a koy fay. gannaaw bi ñu dénkee yàlla suñu bopp nag feebar mbiru yàlla la yàlla musal ñu muccal ñëpp te jëli ko fi. dinañu redoubler d'effort di tàllal suñuy loxo nag ñu jàppale nu waaw ndax dem nañu ba temps yi dama leen ne day leen def sensibilisation à distance. parce que cas communautaire yi bare na te da doon dugg ci kër yi. lii may wax Denis xam na ko di def ay caravane di dugg ci koñ yi mhm. ba dimanche Guédiawaye ña ngi koy def mhm. yëmbal a koy def Kër Massar mhm. ak euh, nu mu tuddati euh, Grand Dakar ak fépp ma ne leen tey leen du ngeen toog te woowu leen fukki nit ci portable wala 40 bu ngeen ne allo allo bu yeboon na nekk France na nga def maa ngi fi waa yaa ngi raxas loxo bu baax yaa ngi takk masque yaa ngi toog seen kër yaa ngi sellal douche yeeg kër yeeg lépp xale yi téye leen leen respecté leen consignes yi ñu fi jox pour barrière bindal ma turam bindal ma numéro téléphone am moo fi ñëwaatee mën naa laa indi lu ëpp 2 millions. gis nga loolu wóor na yàlla euh, Adja Ndeye Khady Diallo. dañu koo wax a wax fii. mooy li ma la wax nit ñi. waaw kon nag léegi nag ay nit yoo xam ne dama ne 15 millions d'habitants. est-ce que finalement. baa jëni dunu 15 millions. te mënuñu benn nit bu nekk may ma rek ma yàggale yow. ci commune bu ne yéen ngi ci. commune yëpp ñoo ngi ci te lii ma lay wax billaahi dama leen a yërëm dama leen a gis li ñuy liggéey kenn santu leen ko waaye nag liggéey de am limite direction bi nga xamee ne nag moo am santé de la mère et de l'enfant moo ñuy jàppale jox ay affaire ay raxasukaay yooyu yëpp docteur Oumar Sall ñu koy gërëm de passage kooku bu ko defee ministre bi la ko def ndax jotewuñu ministre bi lu dëgg waaw ndax tey kon kay yóbbante yegg si la. waaw déedéet dama ne moom moo ñuy hmm. jox la mu ñuy jox moom xam na ko. Hmm. ma nga ne di tege demaguma sànq laay wax Denis laa fa ñëw mais nit bu la defalee da nga koy wax. Hmm. barki démb la ma ko yónnee. ne ma en attendant ndakaar comme cas communautaire yi bare na te yéen mënu leen a toog yéen a ngi dugg demal nga joxe li ngeen protégé wu bu yemee ci benn district sax def ko fa bu ñu amaatee leneen ñu jox leen mais daal liggéey leen ndax bu ngeen toogee cas communautaire débordé wu leen yéen. yaakaaroo leen ni débordé la ba fi mu toll nii ñun ñu am jaaxle. dee débordé wul. man demoon naa ba ñu ne. bu bul sax budul budul budul meeru naka bàjjenu gox yi yooyu. dama ne bul tiit dara lu tax delluwaat ci la fi daan am. ñoom bàyyi tama dugg ci koñ yi. yooyu bàjjen yi def nañ ko sax njiin googu ngay wax. Ah. déglu leen am na lu xew. feebar bu rëy am na bëgg na ngeen def lii def lii téye leen xale yi. mais loolu nit ñi dañ ko daan dégg. dañ ko daan dégg mu ne réeré na nga jëfee. Ah, ah, waaw dañ ko daan dégg day ànd ak jëf ñun action yi ñuy def. Mhm. dafay am action corrective. parce que nit ki bu ñu la waxee defal nangam defal nangam. bu ñu ñëwee ci yow dinañ xam ndax yaa ngi koy def wala déet wala bu ñu dëkkee ak yow di nga xam ndax yaa ngi koy def wala déet. te gis nga damay wax ne activité yi ñuy def. Mm-hmm. gis nga lii masque la. wallaay jigéen comme ñun moo koy defar muy nday Ndoumbé maa ngi koy nuy de passage. Mm-hmm. madame Sarr Ndeye Ndoumbé Diouf bi mu gisee xeexu bàjjanu gox yi dafa ne moom dina ci jàpp norme et protocole la topp. Mm-hmm. xool masque yi ni ñu koy defaree mu defar ko def ko nii. jàppale ci bàjjen yi. Mm-hmm. au niveau de la commune de Wakhinane ni munici kii Nimzaat. Mm-hmm. rawatina municipalité bi. Mm-hmm. tey su amoon fukk. wala ñaar fukk yu mel ne moom. waaw xeex bi dina mat. parce que dafa am ay ay lu nga xam ne. tey jii am na yenn côté yu nga xam ne ay jafe-jafe la parce que nit ki boo ko nee takkal masque. téye ko ci këram. alors que gerte caaf la daan jaay ba 2h wala ba 11h mu dem jël pañe marché am dem nduggi ñëw togg añam kooku nga ne ko jëndal masque de masque lu muy gën a farataal. Mhm. nga ne ko jëndal saabu lu muy gën a farataal. Mhm. nga ne ko toogal ci kër gi lu muy gën a farataal añ ba. Ah, ñun action yi ñuy def. Mhm. di ko wax. ci foofu lañ koy accentuer ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan ñu dend ak nit ku nga xam ne sonn na dañuy dem ci moom wax mu jàppale kii donte gouvernement ñëwul parce que ñun solidarité boobu entre aide boobu loolu lañ xam loolu lay bàjjan yi ak relais yi ak APDC yi di prôné ci biir quartier yi mm-hmm. di ko doxal di ko waxal ñun ci loolu la ñuy dox sensibilisation boobu tey man su ma gisee ne kii amul alcogel dama ko naan bul bul sonn mm-hmm. dem jënd saabu ñaar fukk ak juróom waaw amuloo ndox mm-hmm. munoo fay facture bi ñëwal root kër diw waaw amoo satala jëlal paan teg fii mm-hmm. jëlal sa satala bi ngay jàppee teg jëlal saabu bi ut foo ko def pot bu mel nii daggal ci suuf bënnal def ci saabu bi muy siit nay wow mm-hmm. day raxasu xale yi tey leen ndax jàngu xale yi da lay jàppale mm-hmm. ndax tey yaa ngi nii sonn lool balaa ngay togg da ngay jaay gerte caaf mm-hmm. xale yi boo leen bàyyi ci mbedd bi ñuy taxawaal bu école tijjee dañuy jël ndaare de. mais légitimité wu ki koy wax ci loolu la ñu Sylvain doon delloowaat. xëy na loolu moo changé tey ba ñu nekk te yéen APDC yi par exemple. bokk ngeen ak bàjjenu gox ci ñi war a bokk ci comité bi nga xamante ni ci wàllu taxawu nit ñi ci dundu géej yooyu mbaa yokkaluñu leen euh, nu mu tudd seen mbootu ñu yokkal leen ni gàmb encore parce que euh, xëy na xëy na xëy na luy gën a diis la quand même. après ñu dem ci en ñun moom. Mhm. alhamdulillah mhm. parce que ni koy waxee nit bu amul légitimité kenn ko boole ci comité. déedéet. communal. waaw ah, xëy na yéen fi ne rek wala. waa dëkk waa dëkk ba. waa ba dëkk ba ah, nag nit ñi ñàkk ci représentation communautaire bi xëy na yéen a fi ne. ma ne. Mhm. xam nga composition bi. parce que man vraiment bajenu gox yi yàgg na fi nekk na fi lu baax la ñu koy kii mais xëy na enjeu wu li taxoon ñu def ko. Mhm. enjeu wu bu lu mel nii xewee la. waaw mais loolu la liggéey moom la ñuy liggéey processus bi ci début bi jusqu'à présent ñu ngi ci léewtoog affaire bi mënoo leen ko daal dafa am ñoo xamante ne Sénégal gi xam nga li ñuy wax naan bëruga bu deful dara day bari bruit <laughs> ñun suñu formation dafa am discrétion mhm. ba nga xam ne lu bari duñ ko génne mhm. loolu la ñu wax de mhm. ndax mënoo di dem ci hôpitaux yi di xam feebar di ci sensibiliser di wax barki dem am naa sam benn jabalu mag bu dëkk fële mu ne ma côté Guédiawaye dama bëgg ban boor la ma ne ko duma la ko wax li ñëpp di def def ko del raxasu del takk masque toogal ci kër gi kon ñun li ñuy liggéey genre politique de santé la am ñoo xam ne seen politique dañuy woo benn kii mu topp leen rek. fekk amuñu mhm. mbooloo. rus nañu loolu ndax dañu diggee ancien régime bi monsieur le son excellence monsieur le président Ablaye Wade. Mhm. moo fi indi bàjjenu gox ñu koy gërëm di ko sant ndax mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla. Mhm. te la mu ca duggee barkeel na. son excellence le président Macky Sall ñëw mënoon noo dàq. te dàq na. li ñu gën a gën am jom. Mm-hmm. ñu ànd ak moom mu sagal nu nag wër na Denis bi defal nu lu kenn defalu di ni jox déglu rek jàpp leen ci xeex bi déglu li ma la wax mais dama ne bu la defalee dama koy wax boo amee may ma rek di ñu defal loo xamante ne les quatorze régions ku nekk ba les présidents de région dem nanu maag ñaareel ba may ma rek bu ñu ko nuyoo fu mu dem tudd nu waaw lii du dara moo tax ma ne nit ñi ku la daan tudd démb situation bi kilifa yëpp ñoo kii. bu leen topp loolu yóbbu suñu fit bi nga naan lii du dara. déedéet dama leen ne ñàkk tudd gi du dara. Mm-hmm. moom laa wax ah, samay nit. ndax moom boole nañ te ku di njëkk mm-hmm. ñaaree ba man mii di wax ak yow. bu doon politique Denise ngi du ma nekk haute conseiller des collectivités territoriales. dëgg la moom mu dugal ma ca. Mm-hmm. waaw. ba nga xam ne loolu moo ñu baare ndax ñun dañ ne nu rulloo ci directive bu président Macky Sall son excellence ba baare nañ ci lu bari. man damay jub nit mu ne bokkul fenn na dem ci président mu jox ko ci lépp nag barke salaatul ya amul benn ministre bu naan ba ma joxee day faatu Diallo wala ma jox ay bàjjanam ci télé laa toog ndax dañ maa féetaleeg moom man nangu ko la di liggéey liggéey suuf munu mm-hmm. maa woo ay vidéo naa leen filmer leen ma mënuma woo ay télé ne leen filmé woo ma mais borom mbaar mi xam na. xeex bi daal bàjjeni xam na te ñoo ngi xeex. ku ñu boole ñu bokk ku ñu boolewul ñu bokk. maa ngi ñëwaat léegi bàjjen xeex bi ñu ngi ci léegi. ñu ngi ci te juguñu ci. te juguñu ci ba tey jii nii nii nii ci lañ ci gën a waaw te maa ko wax jarul ki la sagal sagal say bàjjan. <laughs> waaw ah, d'accord te forom fii ne bu neexee yàlla. dinaa leen cëral buñ ca yeggee ndox mii ñëw cëral bu mooy lan ay màgget nanu kenn mënuñoo embauché suñuy doom a ngi ni ku nu woowoon ñu ne jëlal suñu doom mais dinaa leen motiver Cissé yaa ma woo mhm. kon kooku duñ ko ñaan a gudd fan ak wér ak mbas mi jóge fi bañ a laal kenn ku nekk dellu sa liggéey moo tax ñu ne nous roulons pour le président. loolu moo nag ñu fas yéene xeex ba dee yàlla laay topp. dañoo fas yéene xeex nag ba dee. waaw dañuy xeex ba dee. li nga ñu wax moo nu naqari. ndax ñun dañoo mënul. di woote. naan ñoo ngi def lii li ñuy def dañ koy def ngir yàlla depuis 2010. <laughs> mais dañ leen kenn joxuñu dara. wallaay dañ leen di waaw waaw gis nga processus bi. gis nga eh, processus même bu tuuti rek gis nga processus sanitaire bi <laughs> bu bàjjen yi toogee croiser les bras. du baax du indicateur yëpp day wàcc. man nag du ma bàyyi tey digaluma nit nga bàyyi. ëpp naa def ak sunu président bi ak sunu ministre. directeur de la santé ak sunu médecin de district yi ak sunu ICP yi nga ko léegi. ak développement communautaire dañ ñoo yaakaar. sunu ñi ñu fal ci gox yi yaakaar na. Hmm. te ku yaakaar bu. jàmm amee sax waroo toog surtout lii tiital nit ñi ñëpp gëm mu tëxlu bu kenn mer. Hmm. bu kenn mer mais ku nu mën a dimbale. Mhm. ci ay gants. Mhm. lu laal ci alcogel. Mhm. ak lu ñuy protéger wu ñu dugg ci terrain bi. ak masque yi dinañ dugg te dinañ am. résultat ko daan ko barke salaatul faatiha. waaw ah, koy kon euh, voilà ñu dem ci <laughs> Sylvain ak ñiy suuxlu ñëpp naan. dara <laughs> enfin plateau <laughs> ñaari femmes moo wax leen ni femmes yàgg nañ fee ñëw jotaay bii moom jigéen ñaa ngi fi góor ñaa ngi fi ñiy suuxlu ñëpp ci suuf naan jigéen ñee moom tey mais jigéen ñi yàgg nañoo ñëw ci plateau rapidement ñu dellu si waat parce que temps baa ngi dem. ci ci télé la ñu nekk. Uh-huh. Euh, Sénégal yëpp a ngi ñuy seetaan. Uh-huh. ñu ngi ci euh, situation boo xamante ne bii euh, jéggi na dayoo. ci épidémie moo tax yenn considération yi pour man amul place ci débat bu mel nii. sama yaay yi toog foofu ku nekk ala kulli aali ba léegi euh, remettre ñu en cause seen légitimité waaye mm-hmm. su ñuy wax dañuy wax dans un cadre boo xamante ne bi du ñoom kese mm-hmm. te li ñuy wax dafa am téere yoo xamante ne bind nañ ko évaluer nañ ko mm-hmm. liggéeyu bàjjenu gox yi am na seen efficacité évaluer nañ ko problème mu bàjjenu gox euh, dans le choix am na ci dans des zones surtout en zone rurale yoo xamante ne yi critères yi ñu wax pour mu nekk bàjjenu gox mais toppuñu ko. Mm-hmm. waaw nañu waxante dëgg te tey ci wax ji rek. parce que ñoom ñoom ñaar ñoom nee nañ dëgg la li ñuy tax wax. d'accord nañu ak yow mooy mooy defar rek. <laughs> dégg uh-huh. euh, euh, bàjjenu gox dafa ak relais communautaire en général dañoo am solo ci jamono ji ñu toll nii. man dinaa leen may tuuti ñoom nekkul sax seulement sensibiliser. Mhm. communiqué mais tey ñu ngi am ñoo xamante ne ay sorti guéri lañu. wala ñu jóge quarantaine dellu seen kër. ak lu ministère de la santé am équipe bu euh, suivi psychosocial. pour man liggéey boobu relais communautaire yi rek ko mën a def. ba mën a toppatoo famille yooyu accompagner leen. ba ñu bañ leen a diingat ñu bañ leen a stigmatiser am na loolu loolu ci ci ci seen liggéey la moo tax bàjjanu ko muy muy APD li li li Denise wax mais loolu rafetlu nañ ko parce que dans d'autres pays processus boobu la ñuy topp ba ki nga xamante ne moom la ñuy tànn mu nekk koo xamante ne kii euh, amal na njëriñ askan wi am na engagement te suñu ñëwee ci euh, relais communautaire dama bëgg a rappeler ne que à l'origine relais communautaire du liggéey relais communautaire engagement la hmm. maanaam don de soi nga jël sa bopp nga def don de ta personne à la communauté pour un bien collectif looloo taxoon ñu doon ne relais communautaire dafa war a am liggéey ba période yi nga xamante ne liggéeyul mu euh, mu jël ko jox ko communauté mais am na sama benn étudiant buy def thèse ci lii aujourd'hui dañoo dem ba relais communautaire ñu ngi koy bëgg a def liggéey kenn kenn critiqué leen mm. liggéey la système de santé mais est-ce que du est-ce que du est-ce que du charge bi. Sylvain première première chose Sylvain est-ce que ah. du charge bi finalement aussi mu mujj diis. ci la ci ba xëy na relais communautaire bi efficace. mooy ki ëpp jot. ci laa bëgg a ñëw Cissé. Mhm. maanaam soo gisee ñu dem ba tey relais communautaire ñoom xam nañ peese nañu seen bopp xam nañu li ñu leen sant li ñuy def te dem na ba charge bi jéggi na dayoo te loolu ministère. suñu système de santé moo ko def et dans le même temps acteurs yooyu bëgguñu leen reconnaître dans la pyramide sanitaire man damay gëstu universitaire la faruma fenn mhm. waaw donc aujourd'hui cellule de santé comme soo xoolee ñoom la ñuy wax motivation mais motiver wu ñu euh, euh, relais communautaire yi moo tax dañoo war a ñëwaat ci orthodoxie maanaam engagement ñetti forme la am ki nga xamante ni man yow Abdoulaye Cissé yow yaa engage engagé wala man ma engagé sama bopp wala ma engagé ay nit ci mhm. xeexu corona ñetti form yooyu lañu soxla au niveau communautaire am na ñoo xamante ni imam yeeg chef de quartier yeeg et cetera ñooñu ministère mën na leen engagé ne leen jog leen jàpp leen ci xeex mi loolu baax na bàjjenu gox yi ñu ne leen jóg leen jàpp ci xeex bi waaye am na nit ñoo xamante ne yii Abdoulaye ñu ngi ci biir quartier yi di des di des engagé seen bopp te ñooñu il faut que ñu promouvoir leen te tele yi mel ni yéen yéen a leen mën a promouvoir parce que ñi ñuy woo tey Sénégal mooy ñi nga xamante ne ñoo joxe ay milliards. mais man bëgg naa leen laaj ba épidémie bi amul woon fan la ñu nekkoon ak seeni ay milliards fekk jam fekk société bi soxla ko moo tax engagement bi am ci biir quartier yi lañu ñu war a promouvoir te tele yi yéen am ngeen ci rôle nit ñooñu yéen ñoom ngeen war a wone ñi engagé seen bopp ci xeex bi te kenn santu leen Sylvain xelal maire bi di sot nag. <laughs> yaa ngi wax ci ñun mais engagé <laughs> pourtant ñu ngi ci nag waaw mais ñu ngi ci. Mm-hmm. moo tax li li li li Denise wax. Mm-hmm. exemple yaa ngi fi Guinée. nous avons nous avons servi en Guinée professeur Cheikh Niang liggéey nañu Guinée Mali RDC dañu doon def ay enquêtes pour que population yi wax ñu ñan lañu yaakaar ne ko ñoom ñoo leen war a mën a représenter mooy la légitimité. lan mooy différence modèle yi modèle bi ñu am Guinée ak modèle bu ñu am fii ak efficacité bi. bi ñu bi li tax li tax li tax ñu mën ñu arrivé daan épidémie bi en a a Guinée xam nga lan la woon. Mhm. c'est parce que dañoo jël conscience ne que sans ñu mel nit ñi toog foofu. Mhm. ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir communauté yi. par exemple wax naa la sànq maire bi nga xamante ne mu ngi ci biir koñ bi. ba ñuy football suñu footballee ba pare moom moo ñuy tegal bool ñun ñëpp ñu lekk mais maire boobu noonu am na légitimité charismatique. am na mhm. makkaan goo xamante ne gii moom mën na bañ a nekk bàjjenu gox. waaye su taxawee nañu xale yi jóg leen bàyyi leen xeex bi wala jàpp leen ci xeexu corona. Mhm. dañ ciy jàpp te dañ koy déglu moom la ñuy wax légitimité travail communautaire. il faut ñu ñëw ci diversification du tissu communautaire diversification boobu. moom moom moom su ñu jógee ci lii ci épidémie beeg jàmm ministère ci loolu la war a jublu dafa war a jublu ci cartographie du tissu communautaire te bëgguma ñu yemale ko ci bàjjenu gox gis nga les li li li li Denise wax. Uh-huh. mais un agent porteur de dynamique communautaire mooy loolu. mooy nit ki nga xamante ne il il peut faire bouger les lignes de la communauté mën na yëngal dëkk bi. <laughs> Sylvain. kii <laughs> ne may ma rek may ma siise. Uh-huh. parce que c'est important. Oh, euh, rapidement parce que waxtu bi fi mu doon nii wéy na. Uh-huh. entraîneur de football. Mm-hmm. mën na yëngal quartier xam nga lu tax. parce que foofu xale yi dañoo gëm football ku nekk dafa bëgg a euh, génn dem football yi ñëpp yaakaar xale yu góor yi ku nekk yaakaar na ni entraîneur de football su euh, moom mooy suñu idole moom su waxee ñu bàyyi fi ñuy fi ñuy wootoo ah au Mali da ngay dégg li ñuy wax les grains day nekk espace yoo xamante ne. grand place yi dajaloo. mooy seen grand place yi. grand place di di di waxtaan. Mm-hmm. te foofu la foofu maanaam ci si communautaire dafa dafa yaar il faut que ñu jàpp xool ci biir quartier yi ñu promouvoir leen au-delà de bàjjenu gox yi. au-delà de APDC yi. Mhm. am na ay nit ñoo xamante ne ñu ngi def ay jéego ñooñu lañu gis nga sans le communautaire à la base <laughs> dañuy perte suñuy temps te waruñoo perte suñuy temps face à une pandémie de de de l'ampleur ampleur bi mu toll nii. Sylvain jërëjëf Sylvain merci beaucoup Sylvain euh, bu bu ñu ubbee frontière aérienne rek xam naa ci premier vol yi nga ñëw quand même ah ñëw sëmbaxloo jàpp ci xeex bi. waaw parce que aussi gis nga ko am na tur yoo xam ne dellusi na fi plusieurs fois. Mhm. Euh, turu professeur Cheikh Ibrahima. dalal nañ ko fii quand même euh, donc ñun wàccoon nañu ak li nga xam ne mooy promouvoir xam-xam bi ñuy xel li mhm. am ñu mel noonu di leen sàgganee sax ci. lii nii du yoon mhm. Sylvain mi àdduna bi yëpp dañ koy woo mu nekk fa épidémie yam ci Afrique yëpp dem na fa merci cher ami merci d'avoir été avec nous depuis le Canada sa yitte ak sa jot yumpaañ xanaa yumpaañ <laughs> balaa balaa Ndeye Fatou di wax dama bëgg wax <laughs> tuuti rek nañu may tuuti rek par rapport ak Sylvain li mu wax mais en 30 secondes comme ça yumpaañ tàggoo di ko sant di ko ah. gërëm mhm. di wax Sylvain sa sa wax rafet na Euh, li nga xam ne moom mooy processus bi li ñu ci li ñu ci dolli. dinañ ko jël en compte buñ demee ci biir quartier yi. parce que loolu damay damay damay wax ne ne ne bàyyi nañ ci xel parce que waxtaan nañ ci. Mhm. ak professeur bërki mhm. démb mhm. di di di sant di gërëm duma ko mën a bañ a wax docteur Diop. Ndak Diop. Euh, non non docteur Diop mooy euh, docteur Guindo. bu bu bu bu santé wàqi naan ak madam Diop. yaa ngi koy def émission ak docteur Diouf ah ak ma ak docteur Mati. di nuyu ñëpp di bañ a fàtte nag sama bàjjanu bopp. bu <laughs> eh. nga xam ne moom sama bàjjanu bopp la. muy Astou Diarra. ak sama présidente. merci beaucoup Denise di ko nuyu di nuyu Jarga di nuyu ñëpp. APDC yëpp xanaa bu ñu jógee ci lii. yow jeex na suñu partenaire waaw léegi daal <laughs> lépp la ñu fàtte ñun daal xam nga dara jàpp ñu ko woon dana bëgg a dellu ca lañ nekkoon nga ko waxee dinañu commencé jël ay xiin ñun mbégte mañ nekkoon te xiin nga bëgg ñu dugg ci koñ yi dinañ ko def <laughs> stratégie bu ñu xam ne bu ñu ko defee rek nit ñi dinañ ko dégg dinañ ko def incha allah ndax suñu bopp la ñuy dimbale mbir mi kenn moomu ko du xeexu kenn te bu leen xaar te duñu xaar kenn te ñun mësunoo xaar mhm. nee naa la 2009 ba tey ño ngi ci ko la sunu bopp lii ñëwaat nekk nattu bu ñuy ñaan yàlla teggi ko dañ ci dugal sunu loxo. ndax dëkk bi la ñu xam naa ni xajoo leen ci corona te wóor na yàlla. dafa di nag parfois régler dafa baax. <laughs> waaw ndax administration dafa am na mu tëdde gouvernement am na mu tëdde te boo demee fu la invité wul boo fa tojee kaas fay. waaw mais lii moom waaye ñun lii moom communautaire yi waaw. nekk ci biir gox yi. waaw dafa wane lu bëri. dafa wane lu bëri wane taxawaay bu. waaw mais jóg bàjjanu gox relais communautaire. acteur communautaires yi. seen importance ci biir processus bi. léegi nag mais léegi wone leen wane leen li ngeen mën. man li may comme lii ñu xam ni am ngeen njëriñ. li may wax maa ngi ngeen jëlee ko fi la. toutes les bàjjen du Sénégal. Mhm. ci 14 yi les 45 départements les 557 communes. Mhm. ak 12 districts yi nekk Dakar ndax Dakar léegi Sangalkam am na district. Mhm. te am na bàjjen yu ñu ba na ñëpp jàpp comme ni may jàppee man seen président. xam ne bañ cay dugg ñoo jël suñu engagement def suñu partenariat avec son excellence ne ko dinañu liggéey pour le développement de la santé. Mhm. kon bu kenn dellu gannaaw bu kenn mer bu kenn jaaxle ni ñu baax ñaa fi te dégg nañu te dinañu jàppale. gant lu ñu def sunu kii masque lu ñu mën a laal pour protéger wu dénk sunu bopp yàlla taxaw dugg ci kër yi def ak ñoom lu ñu war a wax ak ñoom IEC informer communiquer. éduquer pour qu'il y ait un changement de comportement ndax feebar bii changement de comportement moo ko fiy dindi changer doxalin restez chez vous. Mhm. sol leen gant raxasu leen. <laughs> xale yi ba Cissé am boo xam ne wax nga ko kii na ko nu mu tudd waa ji ñi ngi lay gërëm di la sant mhm. di la jox suñu bopp ndax ñun ay jigéen nañu mhm. loo am ci xalaat rek waaw di jokkoo ak yow nga dolli ñu ndax ñun dañuy jàng kuy dem ci communauté dangaa war a am arme jërëjëf xam sa taxawaay foo koy teg mhm. kon ku nu yokk ñu jël yal na yàlla aar leen Cissé yow mi ñu woo ci turu Futurs Médias di gërëm monsieur Youssou Ndour wóor. daanal leen li ñu indi nii daanal leen ñu affaire bi waaw ñu ngi lay gërëm di la jàpp leen ci rek ndax may nga ñu tey. ñu mhm. exprimer wu dool li nga ñu it lu ñu gën a mën a taxaw. jërëjëf di wax nag stigmatisation bi. Mhm. bàjjen gox yëpp na ngeen ci taxaw. képp ku wér. bu mhm. kenn daw kenn. ndax feebar bi jombul ku ñuul jombul ku xees jombul borom xaalis jombul xale te c'est nous dans daanu ñoo bokk senegal te ay mbokk la. ñetteel ba may ma ñetteel ba. mooy ñetteel ba may ma ñetteel bi ah. ñetteel bi. poste de santé yi bàyyi nañ ko Cissé kenn mm-hmm. fajootul. Mm-hmm. te coronavirus bi day dañ. dañoo wér ci kàttan yi day dañ. dañoo feebaratul rek dañu ragal maladie chronique mi ngi fi. Mm-hmm. PV bi nit ñi dematunu. PV bi ñàkkatunu xale yi. accouchement yi am na ci ñoo xam ne ci kër yi lañ koy def ndax ragal. loolu na dakk sage femme yaa ngi toog leen xaar. ñu ngi gërëm tous les ICP les médecins de région district ak préfet yi ak alkaati yi ñu ngi leen di gërëm ndax ñu ngi ñuy dimbali ma nuyu ma nuyu sama famille yi nga xam ne euh, ñoom lañu mettre en quarantaine tey jii ñu nekk Radisson di leen wax ne seen bàjjan nee na moo ngi leen di nuyu nekk de tout ak yéen di leen wax ne coono bi ñun ñoo ko bokk li ngeen nekk ci loolu lañ nekk. ñu ngi leen di mhm. xaar ci koñ bi mhm. à bras ouvert <laughs> jërëjëf. am naa ci samay mbokk yoo xam ne du ko wax di siiwal. maa ngi bokk liggéeyu bàjjen bi. Mm-hmm. ñi ngi novatem quarantaine ah, yàlla leen yàlla yëkkati yàlla bu ma am ay pour wax la ne ñun li mm-hmm. ñu liggéey yàlla nañ ko seedeel ku mu def lu baax am lu baax ñoo ngi gërëm ñëpp Sylvain cher ami merci vraiment d'avoir été avec nous ñu ngi lay gërëm di la sant merci bon retour parmi nous bu frontière yi ubbee rek yitte moo la fa yóbbu waaw mooy dëgg de euh, nanga ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñiy suuxlu nag naan jigéen ñi fii jigéen ñi yàgg nañ fee ñëw jotaay a <laughs> jërëjëf waaw jërëjëf ñu daanal leen ñu ko dugg leen ci jàpp ci daan ko ñu ñëwaat fii feetu ko ñun dañoo bëgg a gaaw génn ci lii wax dëgg fa yàlla mbégte ma ñu nekkee woon avant lii la ñu bëgg gaaw delluwaat ci da ngeen fi aroon da ngeen fi awoon sëriñu portugais boo xam dafa yëglu woon ne moo yor seen cummikaay <laughs> mu leen di jàppale kooku nañ dimbale voilà sëriñu portugais bi <laughs> jërëjëf suba beneen jotaay ci kanam programme télévision Futur Média mhm. soir d'info suba incha allah édition spéciale la ñuy amal fii du doon point corona point corona lay doon waaye ci beneen anam ëllëg incha allah jërëjëf